asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ma leen nuyoo di am mbégte ak contentement jën ak saa su ne ngir indi leen li gën a fës ci xibaaru làmb avant loolu nag damay nuyu ki ma fegal ko ni ma ko defee saa su ne Assane nuyu naa la. ñoom maa lay fay di nuyu internetu Leewtoo TV yi amaat mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen li gën a fës ci yéen kay yi. leen li gën a fës mooy suñu mbégte mardi 2 février 2021 suñu làmb ci xëtam mu njëkk la qui envahit l'arène sénégalaise MMA le Sénégal dans la clandestinité depuis 2012. wax nga dëgg Ndeye Mbacke tey benn enquête bu yaatu suñu làmb def ci MMA nee ne art martiaux art mix enquête sur un sport qui envahit l'arène benn enquête la def revenu nañu ci lutteurs yi nga xam ne nii ñu ngi def MMA revenu na ci Bombardier ci Rocky Balboa Reug ak Siteu nee na Rocky Balboa ñoom ñooy les précurseurs Reug en ginnaaw bi mu euh, euh, Sofiane Boukissou loolu ci Sénégal la xewoon Dakar euh, wax na également que ne Siteu am na ci ñaari victoire ñaari ñaari ñaari ñaari combat ñaari victoire loolu rek day wane ne MMA mu ngi def ay jéego bu baax a baax a baax ci Sénégal. le lion blanc combattant à l'UFC mu ne les combattants les combattants du MMA gagnent peu d'argent comme ni nga ko yaakaaree ne fii suñu réew ku dem MMA rek yaa ngi gagné ay milliards Juan nee na li ñuy gagné foofu ci MMA lu néew la. dëgg la Ndeye Mbacke Juan moom mooy Espino Juan noonu la tudd xam ngeen ko nekkoon na Sénégal di bëre. bëri na fi quelque combat musul am defet moom mi nekkee woon ci écurie Balla Gaye suñu làmb toujours ci enquête boobu daf ko jox kàddu moom li mu fa wax nee ne les combattants du MMA gagnent peu d'argent maanaam ñun ko Sénégal yaakaar yaakaaree ko ku dem MMA rek da ngay xaalis bu bëri ndeke demeewul noonu MMA day am ay ligue bi ci gën a ëpp xaalis moom mooy UFC nee si ci UFC boobu boo defee benn kaawa normal rek dina dina am dina am bonus su cinquante mille dollars cinquante mille dollars soo ko convertir ci franc dina weesu 27 millions lay mbàkkee. yàlla suñu jàmbaar yeeg incha allah Bertrand Amadou mu ne Reug Reug ak Ngath Déme Bombardier ay débutants ay gan maanaam ci nga bi mooy MMA. dëgg la Ndeye toujours ci enquête boobu suñu làmb def dafa jox kàddu Bertrand Amuso kii moom mooy pionnier et pionnier MMA France maanaam bokk nañu ñi njëkk indi euh, MMA ci biir France moom nag li wax nee ne Euh, MMA am na ay centaine de ligue ci biir MMA MMA daa ay ay am na UFC am na Bellator am na Invicta am na KSW en Pologne Russie am nañ seen boss Angleterre Afrique tamit Afrique tamit am na ñaar RS ak EFC mais lu mu ci teg nee comme sénégalais yi dañu comparé Reug Reug ak Bombardier kan moo jiitu ci MMA moom mi leen di mi leen di mi leen di mi ngi ay leeral a mi ngi pare di leen calmer tuuti nee na Reug Reug ak euh, Siteu moom wala Reug Reug ak yëpp ay débutant lan tolloo gun fenn fi ban leen war a jox leen benn dayo bi nee nañ daal nan xaar ba am seen dixième combat ñu xool ñoom lan la ñu jaar dëgg-dëgg ci MMA bi. incha allah kañ amoon yaakaar ci moom mooy ki nga espoir de Fass tey ci suñu lamb présenté comme le plus grand espoir de Fass Lac Rose Dijon. Lac loolu titre bu neex la xam naa Ibakan moo dañu digg tey présenté Lac Rose nee euh, comme le plus grand espoir de France euh, de Fass Lac Rose disjoncte maanaam euh, li mu amoon yaakaar bi mu amoon ci moom ba muy départ dafa commencé woon di tegale ay victoire tegale ay victoire dem ba si àgg nag mu réer nër nër kenn gisatu ko ci arène bi ba pare mu commencé di def ay descente aux enfers looloo tax daal euh, journal suñu làmb ne Lac am na également treize combats treize combats yooyu huit victoire rek la ci am tegale ci quatre défaites loolu nga xam ne nii lu métti la ci Lac Rose looloo tax daal journal bi ñëw ci wax loolu ci moom tey. Euh, Lac Rose fan nga nekk génnal boobu gaa ngi lay xaar Papa Sow ak bi nga xam te ne mooy équipe jàmbaar mu ne ma devise mooy yëngal gësam. oui ginnaaw ginnaaw ci rubrique euh, Leewtoo la ko suñu làmb dalal. man nag li mu fa wax waxee na dérision dérision moom mooy yëngal gisam wax na fa li gën a ragal ci àdduna moom mooy déception moom mooy maanaam rusloo nit ñi dem làmb par exemple ñu daaneel la moom daal déception moo ko gën a moom la gën a ragal ci àdduna wax na également plat bi mu fa mën a togg nee na a togg omelette maanaam baxal <laughs> voilà omelette wax na fa également kan mooy lutteur préféré am ban lutteur moo ko gën a neex nee na lutteur boo gën a neex Tapha Gueye la Euh, combat à huis clos les acteurs de Mbour rejettent ñoom ñoo xam ne nanguñu li nga xam mooy combat à huis clos. oui suñu làmb jox na également parole acteurs Mbour yi wax na fa jox na fa ay quelques personnes pour ñu wax ci huis clos bi ñoom nag ñu ci gën a ci bëri ci ñoom ñoo naan d' accord ci huis clos bi kenn la ci njëkk a jox kàddu muy Moussa Diop Moussa Diop moom mooy euh, ci Los Production la bokk moom nee na le huis clos impossible. sans l'aide de l'État mu naan ne mu nee daal bu ci état bi jàppul ñii ko moom bu ko kenn xalaat euh, suñu lamb jox na également parole docteur syndicat docteur syndicat promoteur la waaye également lutteur la moom nee na euh, les promoteurs mbuur moom li wax moom mooy promoteur mbuur mbuur yi jotuñ seen wàll ci aide bi état bi joxoon ak promoteur yi nee na daal soxla nañ euh, aide boobu te ñuy xaar seen wàll ci affaire boobu suñu làmb jox na également parole Pape Silla Pape Silla moom mooy président des écuries euh, président de l'écurie Mbour Montagne Mbour Montagne mooy écurie Bombardier bi wala Mbour Montagne moom mooy écurie Pakala su ma jumul moom li wax ma mooy le huis clos est possible pour en football waaye bu dee ci lutte moom Euh, bu ko kenn xalaat wala nga xam ne dina compliqué trop keneen ki mu jox kàddu également mooy Aziz Ba Aziz Ba moom mooy président des managers de Mbour moom li wax moom mooy le huis clos est possible pour sauver la saison moom nee na daal pour ñu sauver saison ren bi huis clos rek la ci gis Ndeye Mbacke. ba tey ak Papa Sow ginnaaw ba muy réclamer ouverture du mhm. dëgg la euh, Ndeye Mbacke xam nga Papa Sow dafa amoon problème ak Fass ñu daax ko. dañ ko daaxee nag mu créé écurie écurie mu ngi ko tuddee Jambar Wrestling Academy ñooñu la ko tuddee mu ngi ko créé woon le dimanche 2 février 2021 ñu nekk mardi 2 février 2 non mu ngi ko créé le dimanche 2 février 2020 tey ñu nekk ci mardi 2 février 2021 maanaam bi am na. Euh, un an ci tey waaye nag bu ñu ko créé ba léegi amagul zéro combat parce que dafa créé saison bi ubbi euh, mbas mi ñëw boobu ba léegi lépp arrêté ba léegi daal amagul benn combat. voilà amagul benn kon tombé war a mu xaw a wala am na combat nga xam te ne mooy Siteu. Mhm. ba léegi dañuy desandi Gaston Mbengue prêt pour le 4 avril. Gaston Mbengue kon ni ñu doon nga xamee temps yëpp ñu génn ne combat Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène fas yéene na ko tëgg ci 4 avril bii di ñëw tey nag suñu làmb ñëwoon na ci moom mi ngi dëgg ak kàddu yooyu nee na dem tëgg combat boobu euh, ci combat Eumeu Sène Lac de bëgg na ci rax également ci même jour bi combat bi war a dox ci Modou Anta ak euh, Diène Kaïré waaye lu ci ñaaw lu ci lu ciy lëndëm rek mooy Sambaay Fall mi nekk ci côté bi ne date boobu également moo ko moom léegi daal ñu ngi leen di xaar. dina xumu leen def. dina xumu dina tegal le Don King de bëgg amal ñaari grand combat sax laay wax. waaw ci man dal ah, national boobu. exactement gi Abdou Diouf retourné ñu bis nañ fi nga xam ne mooy suñu gaal. Guy ak Abdou Diouf ginnaaw bi ñu demee Amérique Amérique sous l'invitation de Mo Gates xam naa seen voyage bi jël na buzz ci Sénégal suñu làmb nee na nag ñëw ren ñu ngi Sénégal après ñu defee seen seen voyage boobu maintenant nee na ñibbisi nañ. ba ñibbisee la xam naa dinañ wéyee ndax ñoom amoon ñu a yaatoo yaatu incha allah. Mhm. Euh, que cache le ministre Matar Ba ba ñu koy déglu ba léegi waxagul. interrogation boobu la suñu làmb def tey que cache le meeting de Matar Ba Matar Ba moom mooy ministère des sports depuis des semaines wala des mois maintenant. ñu ngi koy xaar pour mu wax lu leer ci démarrage saison bi ñu ngi koy xaar waxagul ba léegi nag suñu làmb nag dafa def benn interrogation mais ñëpp waayu Matar boobu boobu daal lan moo ko waral ndax Matar bu ñëpp ñu ngi koy xaar te na àddu. fa ñu jëm nag mooy record ki nga xam ne mooy Mamadou Mendy nee na li nga xam a xaaree ci li nga xam te ne ko waxee ni nga ko waxee nii nii la Ndeye Mbacke Mamadou Mendy directeur technique région de Fatick. moom nag li wax moom mooy huis clos bi c' est impossible pour la lutte simple nee na lutte simple daal nga def ci huis clos c' est impossible euh, xel nangu na ko nag ndax euh, lutte simple ni mu demee ak huis clos jàpp na ne daal mënul nekk waaye nag nee na lutte avec Fra moom mën a nekk ndax bu ñu ko defee PPV bi wala télé yi mën nañ def euh, seen partition de telle sorte ko amateurs yi di leen ko seetaan waaye également promoteurs yi peut-être mën nañ ci xaalis. man ñu ubbi làmb ji daal dem saa tax téeméeri na mën a làmb loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar suñu làmb lan ngay tàggatoo ak wàll. bon balaa maa tàggoo comme d'habitude may remercier waa Linguère mais tey nag di la souhaiter anniversaire di ñaanal euh, fanu gudd ak wér gu yaram yàgg ko feete ay année année yu bëri waaye gàtt yu lay ñëw nag xeer naa ko trop <laughs> déglu ko lekk bàyyi baax a baax. waaye dinaa gërëm la ma ko mën a leen sant di leen gërëm mbokk internet Fama bëgg naa lu baax baax seen Fall Mansour sama caméraman bu ñaawal bi Ousmane ah bëgg naa leen yéen ñëpp sama euh, suñu infographe boobu Malick di jaajëfal Amin Ndiaye maa ko sant di ko gërëm gis naa commentaire yi gis naa message yi et tout naa ci ñëpp ah sama anniversaire bi nee mu commencé ñeex na bëgg naa ci yéen bu baax a baax a baax maa ngi la jaajëfal leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.